Bah Diakhaté daal dina suscité réaction yu bëri bi la yoon nag kii di chargé de campagne ak communication bu Amnesty International moo daal di rek ñaawlu kàddu activiste bi El Hadj Abdoulaye Seck jàpp ni que yile tuuma doon na lu ñaaw te nag mbirum yàq der la. mu nekk ay kàddu yoo xam ne dañ koy ñaawlu parce que rafetul rafetul ci ci deru kenn waxuma laa ci deru ay kilifa yu ko yu ko teg. donc ñu jàpp ne rek acteurs yi acteur politiques yi société civile képp koo xam ne ni yaa ngi ci espace politique bi am na ay wax yoo xam ne nii mën naa ñàkk. waaye nag moom droit de l'hommiste bi daan na déplorer arrestation activiste bi mu jàpp ni que dañoo war a dépénaliser bépp délit bi nga xamante ne dafa jëm si wàllum diffamation. boo xoolee euh, état yu bëri wala ci organisation yu mel ni CEDEAO. ñoom jàpp nañ ne lépp loo xam ne nii. Euh, aju na si infraction yooyu maanaam diffamation maanaam injure waratul yóbbu nit kaso tekkiwul ne euh, ku ko def dara du la ci fekk mais am na yeneen solution au lieu ñuy jël nit ki tëj ko kaso wala ñu arrêté ko mun na am ay daan yoo xam ne nii dañ koy teg. El Hadj Abdoulaye Seck daal di woo njiit yu bees yi ñu xoolaat seen doxalin ñu bañ rek topp ci tànku ancien président. bi di Macky bu fekkee dañuy wax rupture dañuy wax changement par rapport li fi amoon du dindi ay nit rek remplacer leen par ñeneen di indi même pratique yi déedéet li ñu bëgg mooy li nga xam ne nii mu ngi fi doon am muy ay dérive muy ay euh, ñaawteef yoo xam ne ñu ngi ko doon def nit ñi di ko subir. ñu changé loolu. ginnaaw buñ ko tegee loxo altine bi activiste bii di Bah Diakhaté ba léegi moo ngi ci garde à vue moom nag ñu ngi koy toppee li di diffusion de fausses nouvelles waaye itam tooñ ki nga xamante ne dafay exercer yenn ci prérogative président de la république.